Nouvelle production africaine présente Papa Diouf et la génération consciente en tournée nord-américaine. Touba ñoko déggandoor jaawlu wu leen ko de mom la mom kan naaru yaay caala ñing papa diouf xale bu xew ci jamono gune pikin bi mo fasiyene yéene ak nouvelle production africaine ci tourner bu ñepp di xaar ah wa Amerika kat dañ na mon papa diouf ne le bu len dara naqari ñu ne bes bobu kañ la le 9 juillet 2016 à l'édifice cultural building de new york city bes bobu nak invité bu mag bi di kii xewe mbokka bay baabu ne dina fugas ak yéen buy bi nga ñu ne ko Pape ana la wax ci guddi maalo bii ñu jël fas yéene ko internationaliser. Sénégalais de la diaspora salaamaaleykum les Gambiens de la diaspora man la seen xarit Pape Diouf yéen a ko doon laaj egsi na muy la American Tour Pape Diouf et la génération consciente ak kan ñu African Production guddi maalo kañ lay door le 9 juillet ca New York City waa New York nag pare leen de man bettuma leen bàyyi laa bu nee na bu mu leen bett muy sénégalais yi di Gambien waaj leen ko bu baax a baax a baax. le 9 juillet guddi maalaw spécial guddi maalaw biir New York City buñ fa jógee ña nga jëm nag Atlanta waa Atlanta ne waa New York duñ leen ko yóbbu ñoom it guddi maalaw bi amul kenn koo xamante ni dina leen ko dina leen ci gañe ñu jógee foofu waa Washington ne nag waa Atlanta duñ leen gañe de ñu ne waaw ku ci bëgg am ay information nooy def ma ne leen da ngeen contacter di au 201 290 66 14 wala rek ngeen dugg ci site bi www.newafricanproduction.com. new african production com ay Papa Diouf yaa koy rajo